waaw <clears throat> sama xalaat ci ci commissariat pèlerinage bi ñuy desuudu man <clears throat> yàgg naa ko wax du tey ayaat yu bari la ndax saw fas boo ko amee bu ko jox sa xarit jox ko xaritam lis maanaam aj dafa bokk ci juróomi ponk lislaam yi juróomi ponk lislaam yi nag képp ku ci màbb benn màbb nga lislaam taaj di ci benn moo tax bu ñu koy joxee dañ koy jox ñu ko xam ba pare am ci compétence te loolu eh, eh, yàgg naa ko wax ci rajo yi ci tele yi ak ci journaux yi kon lii ñu def moom ànd naa ci maanaam dissoudre commission bi moom lu ma ànd la waaye nag eh, jële fi dara loo fi teg loo am solo la kon ñu ngi interpeller chef de l'État ndaxte ñu sénégalais yi moom la fal ni na na jëlal boppam commission bi en mai waaw saytul ko boppam ba pare jël ñoo xamante ni seen xam-xam màcc na ci chariatul islamiya xam dëkk ba dégg loola arabiya ndax lu ci nekk eh, da koy jox koo ko xam demal ci cheikh al islam cheikh Ibrahima dafa bindi téere bu ñu naan tabsiratul anam bi anna al ilma huwa al eh, wax wax na ci biir ni al ilmu imam wal amalu taabiu xam-xam moo war a jiitu jëfe topp ca kon ñu ngi interpeller le chef de l'État xam nañ ni bëgg réew mi bu sañoon Sénégal muy mooy raw ci réew yi waaye nag nu muy rawee mooy nañu jël compétence yi jiital ko ndax li gaa ñuy wax ni hmm, boo demee Amérique dañ nan la loo man nga xam ne expérience lañu favoriser loo man seen yoon nikku ci foo jógee ak nangam bu dee France système France dañ naan la loo xam bu dee fii ci réew mi dañ a la koo xam aj gi nag loolu bu mu ci bokk nañu jël ñu ko xam waaw am ci compétence seen CV leer nañ ñoo xam ne ñii buñ leen jëlee xam nañu chariatul islamiyya xa dégg nañu loolu arbee xam nañu réew ma bu ko defee ñu def leen commission ñooñu lu ñu xel ci aj gi yaakaar naa ne kenn kenn du ko dingat kon ñu ngi interpellé chef de l'État commission bi ñu teg mu jël ko amee ba pare seggi nit ñi seggi leen ku ne mu xam sa jaar-jaar xam kii lu mu mën ak lu mu mënul nit nag boo ko joxee lu mu mënul yàq rek la ci def kon nañ nañ ñu dimbali ci commission bi ñu teg képp koo xamante ne loolu du sa domaine moo tax milliers pèlerinages bi ñu ko war a assainir dafa taq bëri na ñu ci dugg li leen ci ñor mooy commerce rek commerce waaw commerce dong lañ ci ñor seen yoon nekkul ca jaamu yàlla ga te jullit ñiy jóge réew mi di dem màkk jaamu yàlla leen yóbbu commerce yóbbuwu leen kon na président de la république jël ñu ko xam. ñu ci am compétence bu wér tànn CV yi ak ku nekk sa jaar-jaar dana xam commission commission bi ku ci war a bokk ak ku ci warut bokk ndax bëri na ñu ci nekk ñu lëj te dañ leen war a dindi seen i loxo ba mu set wecc ñi ci wax ku dëgg bëccëg te xamuñu ko dafa am loo xamante ni ku ne jox ko domaine am waaw ku ne jox ko domaine am koo jox domaine am nag wàcc nga kon ñu ngi ñan le président ndax am réew du dox mukk waa réew maa koy doxal waar yi moom mooy ñan mooy barab bu nekk ñu teg ca ka mën a doxal barab ba waaw ñu ko mën a doxal aj gi nag mooy ki xam nag moo mën a doxal aj gi waaye nag jël koo xamante ni xëy na eh, ab jullit la ñu ñëpp waaye xam-xamam des ca kon loolu nañ koy bàyyi xel bokk na ci li ñu gàllankoor PSE président lancé suñu bëggee du nekk slogan mooy barab bu nekk nañu jël ña ca waroon nekk ñu nekk ca ak fu ñu mel na nekk ci réew mi ndax réew mi lépp a ngi fi potentiel yi ci ngi fi waaw léegi nag te président am nañ mooy gëstu ñëpp. waaw na gëstu ñëpp bu ko defee nag daal di tànn commission boo xam te ne bu leen fi tegee lépp lu ñu doxal ci aj gi lu ñu dogal ci aj gi moom moo loolooy dog ndaxte charia du leen jam ngor du leen jam waaye tamit euh, liñ naan ouverture du leen jam te seen domaine la ndax ku nekk la nga xam loolu lañ loolu lañ la war a jox sëriñ Mbaye